grande lumière mooy armée bi du wax. du wax du communiquer mais c'est pas ça pas dire que duñ wax ci armée bi. may may ko mu dem kii monsieur Seck. grande lumière mooy armée bi du wax. Mhm. mais dañ waroon nañoo wax ci armée bi. très bien li ñu def nii nag wax ci lu jëm ci loolu la. Mhm. parce que secret défense euh, boo ko mënee euh, comprendre sax quelque part xëy na nekkul par rapport ak population yi nga xamante ni ñu ci dëkk bi. mais par rapport ak pays voisins yi nga xamante ni waru ñoo xam say puissance waruñoo xam li nga jënd ak leneen ak leneen moo gën a tax ñuy wax mais Sénégal budget bi jógewul fenn fenn fenn furul xaalis bi nga xamante dañ koo dajale suñu ñun ñii pratiquement mais xaalis boobu bu nekkee ne génne nañ ci un franc un laa wax de ñun dañ ko war a yëg wala suñuy représentant yëg ko mais nan nga mën a comprendre Ramatoulaye un député euh, bokk commission des finances nga ne ko ndax budget Sénégal bi prévoir nañ ci quarante cinq milliards pour armement mu ne la noonu yëgu ko mhm. nga ne ko Stade Abdoulaye Wade est-ce que yëg nga ne def nañ ci cent cinquante six milliards mu ne yëguma ko mhm. mais bu boobaa lan mooy am <laughs> maanaam euh, nguur gi lu ko neex mu def amul aucun contrôle mhm. amul aucun contrôle te bu ñu demee ba nga xamante nii foofu lañ toll <laughs> yii ngay wax ni ay secret défense ak euh, mais wax naa ko sànq sénégalais bëgg nañu sen armée am équipement bo xamante ni lu dem ci frontière bi ay groupe yu ndaw diko diko toroxal mais loolu moo indi coup d'état Mali loolu moo indi coup d'état euh, Burkina Faso ay militaires yo xamante ni japp jàpp ne dem nañ ci front bi te amuñu suffisamment d'armes mm-hmm. donc loolu du question bi question bi moy le ministre de l'environnement dem di jënd ay matériel de guerre jëndee ko ci ko xamante ni même dëkkam dañ ko fay wër c'est ça le problème parce que amna boy jënd arme amna ci yoon yo xamante soko fa jëndé Rappelez-vous que le président dem na en 2016 Pakistan. Mhm. di fa wuti ay armes mais ça n'a pas suscité de débat. Mhm. li li suscité débat moy pistolet bu mu xamanteni téyé nako à part ça les sénégalais n'ont discuté de rien d'autre maintenant bu vous né bi ni comme wax naa dit, amul ci benn circuit officiel pour xamanteni ni jaar na fa assemblée nationale yebou ko les sénégalais là bu nekkul né ne OCCRP def nañu. cet mhm. article ba mu fuité mais kon débat bi du am. du ñu jotee ci information débat bi du am te alors que c'est 45 milliards yoo xamante ni sama xaalis a ngi xaalisu Pape a ngi si xaalisu Pape Sané ngi si donc bu nekkee ne dañ ko def pour suñu kaaraange donc ñoom waruñu am difficulté pour wax ñu ko. alors Pape Matar justement difficulté boobu moom ba tey mooy subsister parce que ñoom ñi ngi. Euh, monsieur Aziz euh, li mu wax mooy ay nit yi dañuy ci mais je pense que c'est un sujet assez sérieux pour xamante ça interpelle tout un Sénégalais d'autant plus que xaalis Binti Dougal, c'est une manne financière te aussi est-ce qu'il n'est pas tant aussi ci code de régulation réglementation du code des marchés foofu parfois des am benn euh, opacité pour xamante agression carrément qui euh, lañ fay lañ mhm. mais loolu Ramatoulaye bu ñu delluwaat ci le Covid break lu mu tudd euh, mille et quelques milliards yu ñu yu ñu jëloon ni dañ koy séddale askan yéen ñu duggoo ko ci feneen ak feneen loolu amul benn transparence donc ku def loolu ci ñàkk transparence bul ko xaar ci yeneen dépenses yi nga xamante aussi mën na ko jaar te te def ko te du am benn transparence maintenant dafa am loo xamante ni aussi euh, maa ngi koy dégg sànq ba tey état état état il faut aussi ñu bàyyi di ñu di ñu di ñu di ñu indil ay mit de l' état état état état état dafa am nu muy doxee état dafa am lii ak état dafa la état bu existé c' est parce que dafa am population population bi moom la constitution ni la souveraineté appartient au peuple boo ñëwee peuple ni population population gis nga c'est pas l'état di xam lépp ci askan bi mais askan bi moo xam lépp lu état di def bu ñuy naan ay affaire de secret défense Ramatoulaye lan moo gën a dangereux yow nga dem di contracter ak benn privé boo xamante ni de moralité douteuse comme ni nga ko waxee kooku mënul jël say information mu jaay ko ay bandit ay délinquant yow Sénégal man boo leen dégg parfois damay naan mais attends ñi est-ce que dañuy dañuy dañuy fàtte suñu réalité wala lan moo fi xew euh, Pape Sané ñaata militaire français ñooy ñëw ay capitaine ñooy ñëw di former suñu ay militaire ñu jox leen toutes nos informations Sénégal ban secret défense lay wax yow sa gendarmerie sa police sa armée Nous sommes dañ leen Nous ñan ñu leen formé ñu lay ay étranger da ngay xëy sax si ay coopération ñu lay may ay armes ñu la ñuy wëlbatiku du ñu naan ay Sénégal xaw ma lan ak lan défense secrétaire défense secret défense il faut que ñu arrêté gis nga bu ñuy contracté ay mbir ci turu sénégalais yi sénégalais yi am nañu sañ-sañ quand même ñu am les bonnes informations surtout que aussi ñu respectons les yi bien que mën nañu mën nañu mën nañu waxtaan ak ñoom ci lu ne mën des leen critiquer mën nañu leen reprocher lu ne mais député yi dañuy ni ñoom censé représenter le peuple donc kan mo gën légitime pour mën a jot yenn information yi entre un député sénégalais bi nga xamante xamna ni tey jii bu ñu Sénégal mom mo ci ñak ak ay intérêt ak ben étranger bo xamante de moralité douteuse ñu ngi wax dëkkam kan mo wax am les informations concernant le Sénégal buñu ñuy nuyee benn bakkan mën na mën na mën na raw sax 45 milliards nexna dégg dé mais mars 2021 14 bakkan ñoo